dinañ ci dugg ci conducteur bi si kanam tuuti ma lay gërëm bu baax a baax a baax euh, également euh, si le euh, Morphal me le permet hein, Mor Diouf wax na ab wax na léegi ci li nga xamante ne Nicolas Jackson sa troisième passe décisive en 27 matchs joués toute compétition confondue. surtout qu'il est le troisième joueur le plus décisif en Angleterre lan nga xalaat ci ce prodige qui est Jackson et qui qui qui brille en ce moment de mille feux. bon mooy li ma waxoon léegi rek dama siy revenir boo mhm. xoolee boo yooyu fi fii lañ jaar championnat Sénégal c'est-à-dire que ñun ñoo ngi liggéey liggéey bu reuy quoi parce que fi bo fi woné sérieux war fi full ak fayda fo dem ci monde bi da ngay bok tay buñ togué di gis euh, Nicolas Jackson muy def li muy def ni mhm. yakarna naa duñ mën lu dul kontaan si mhm. ñaanal mu def carrière bu bu rëy quoi effectivement tay suma la lajone xeyna euh, nga nga nga may ma benn anecdote bi nga jot am ci événement yi nga jot couvrir lan nga may may bon anecdote yi <laughs> bëri na ah bëri na parce que parfois li ma li may marqué bëri na peut-être damay damay ñëw rek ci yenn après peut-être yeneen yi dinañ si dellusiwaat euh, maa ngi rappelé wu euh, Séné bu ñuy dem euh, Corée du Sud. Mm-hmm. Corée du Sud bi ñu fay dem ànd ak équipe nationale bu Sénégal. Mm-hmm. d'habitude journalistes yi <coughs> bu ñuy dem di couvrir match yi. Mm-hmm. dañuy jël seen transport à part quoi mais pour war na ne dañu yàgg topp équipe bi fu nekk. Euh, man ak euh, Bakary amna ay match yo xamné ñun ci biir équipe biisu équipe nationale bi la ñuy mhm. ça tellement que dafa nekk dëkk yo xamné do fa gis presque do fa gis ay noir ah do fa gis euh, suñu système ak sen système du ben mhm. fofu do gis transport bi comme ni parfois et tout.

di def sa couverture et que match à la fin mu am ben genre de euh, supporters yi fi lu mus nga ko dund. <laughs> waaw mus ko bu metti sax. un mhm. jour ngeen di def fi émission euh, match bu ñu waroon jouer ak Côte d'Ivoire jour nous ñu ngi def éliminatoire mhm. coupe du monde Côte d'Ivoire nous lañu éliminé euh, Léopold Sédar Senghor jour où nous avons du matin. du matin. Euh, pour nous, Il y a bibi Léopold Léopold ok hein. très bien 2013. voilà 2013. Sénégal Côte d'Ivoire Sénégal Côte retour très bien léegi euh, ci lañ acc suñu terrain bi ni mhm. mais jour bobu noonu wa ivoiriens yi même bu ñuy jógee si stade bi mhm. gars yi dañ leen indi ay voiture blindées lañ leen andil pour ñu mëna pour ñu mëna genn genn genn stade bi pour wan leen bon Sénégal bobu bëggoon nañ dem coupe du monde c'est vrai parce que 2002 après ñu ngi doon rêvé pour amaat benen génération bi ñëw temps yoyu la ñoom Sadio Mané nek ay xalé mhm. dor di ñëw ay Sadio Mané Idrissa Gana Gueye ay Cheikhou koyaté ay euh, Ousmane Mané. tam mhm. nekkoon góolu jàmbaar. Mhm. da ngay gis ne booy yi bëgg nañ mais ñi leen ñu leen ëpp niveau ñi leen ñu bon du benn quoi ñu ngi doon di ñëw xam nga match yooyu marqué na ma trop quoi. parce que dañu ci lañ tëjee suñu stade bi. Mhm. ba boo rappelé woo sax euh, Drogba bi muy ñëw euh, di inauguré euh, stade met Abdoulaye Wade bi. Mhm. mu ngi né ma leen maa tëjoon stade Léopold Sédar sama ñëwaat naa pour ubbi la ubbi la ubbiwaat leen. <laughs> voilà très bien mais man li ma bëggoon nga leeralal moo ko rek mooy. Mhm. peut-être instant instant bi nga xamante ni nii affaire bi am na service d'ordre yi est-ce que yéen dañ leen a couvrir waaw wala dañ leen a jël muur leen pour bañ kenn ku leen laal. waaw. Euh, dañu couvrir pour bañ kenn ku laal mais c'est que euh, boo yàggee euh, di couvrir championnat ak nawetaan da ngay dem ba incident yoy du don problème si yow parce que boy boy boy couvrir ay xandaalu ak déggoo ay mm. zone 1 match bu nek noonu lay mel chaque match noonu lay mel nawetaan quoi mhm. moo tax ma xam nga am na lu ma wax léegi ma ne boo commencé fii championnat Sénégal mhm. couvrir dëgg dëgg dëgg nekk un reporter mhm. foo dem si monde bi da ngay da ngay da ngay da ngay évoluer quoi parce que amatul lu lay jaaxal du incident du match bu rëy du dara man amatuma stress si match match ah bu mun a rëy rëy rëy awma problème yooyu noonu xam nga comme ngay couvrir pour del si sa laaj ngay couvrir ay match xandaalu match boo xam ne bu jeexee booy booy dañuy raak presque ay bëgg guddi dañ leen di kii yow nga tàmm loolu lacrymogène yi du dugg si biir stade bi boo génnee doo am foo jaar chaque jour mën a chaque samedi presque parce que bu ñu ba deuxième tour ak dóor mu toog mm-hmm. euh, équipe nawetaan yi kenn dootu bëggati toog léegi nag xeex lañ koy àggalee mais parce que ci image yi dama gis benn image boo xamante ni nii mm-hmm. dama la gis nga sol genre plastique sol kii loolu mooy damay préparer affrontement bu amee <laughs> image boobu gis moo ko sax waaw mais bii iso match iso la woon iso loolu loolu je pense que loolu c'était à tes débuts image boobu parce que loolu yàgg na euh, je pense que euh, wa wa wa réseau ñu may bobu moy mhm. image bo xamantene c'était à tes débuts. Mhm. sur ça sax man bëgg na nga dellusiwaat ci say début yan ja yan difficulté nga don jankontel bi ngay door dugg ci métier bi ak ñan nga fa fekkoon. Mhm. ñan ñola dalal. bon peut-être euh, mënon na jeexal feulé mais. après avec plaisir jeexalal après. <laughs> Yo, voilà très bien Yo, bo xam nga bo tamé championnat bi euh découvrir ay nawetaan ak yo, après yow boo demee match bu mel nonu am ñu téye len ci digit terrain bi doo en fait du la def dara quoi peut-être ñeneen ñi lay xaw a jaaxal tuuti bon mais yooyu du la def dara quoi maa ngi rappelé wu sax sama sama waay moom jour boobu man maa ko tane quoi <laughs> sama waay man maa ko tane moom jour boobu. sama waay mooy tane voilà <laughs> sama waay mooy Bakary. Bakary ak <laughs> tudd turam quoi. xam nga buggul defeet quoi. moom buggul defet. xam nga buggul defet quoi. Mhm. Mhm. léegi pour euh, ñëwaat si sama ay début. fii championnat mhm. Sénégal. bon peut-être euh, bi may débuté. Euh, nekkoon naa koo xam ne euh, bëggoon naa li may def ko mhm. mm-hmm. bëggoon naa li may def euh, boobu bañoon naa ko ba sama moto laa yor Léopold Léopold Ibamar. Léopold Ibomar euh, nu stade Demba Diop Demba Diop Léopold Ibomar Demba Diop. Léopold Ibomar Demba Diop. c'est ça mais mais si biir si biir yooyu yëpp dama don tok sax parfois dama ñëw rédaction ni mm. di togn gars quoi Ma ngi naan Léopold Ibomar euh, Demba Diop. mais di ngeen tok ben jour di ma seetaan télé naan moo ngi ni di couvrir Ligue des Champions. Et mo am sax. waaw effectivement parce que pour wala né euh, nit ki lepp lu mu nek rek. Mm-hmm. nako gëm mm-hmm. wala ci fulla ak fayda.

photo bi moom xamatuma woon euh, kañ la woon sax. yi uh-huh. ma ci jot a dund bëri na. Uh-huh. Euh, parce que xam nga championnat. Ah. Uh-huh. booy ñëw chaque jour yow da ngay dem ba dootoo amati sax club. effectivement ñëpp ngay supporter. ñiy couvrir championnat bi dëgg xam nañ li may wax da ngay dem ba yow équipe yëpp ngay supporter. am na jour maa ngi rappelé wu ndeysaan euh, jaraaf ak ñaari tali di joué. Mbay Ndiour jour boobu dafa waroon dem si guddi gi xaw ma ci suba gi amoon na contrat à l'extérieur bu waroon dem. mais ci jour bi mu am benn contact bu mu am ak euh, kii jéeju am na benn jour ñaar télé damay fàtte tur bi. Mhm. booy booy jéeju quoi booy bi xool mbay tu am double fracture. Oh. ci ci jour bi ci suba ga waroon la waroon dem Europe contrat bi xool mais jour boobu noonu dama dama dama bàyyi man nekkatuma di photo. mais dama xam nga reporter d'habitude da ngay da ngay topp image mais tellement que jour yëpp da nga demone ba am ak ñom yenn affinité yi parce que ñoy and voyage bu ñuy dem ay CHAN bu ñuy dem mhm. ay euh, équipe nationale locale bu ñuy dem fu dem ci Afrique bi ñoy and da ngay dem ba jour yi da ngay am ak ñom yenn affinité yi boy bi bu mu bu mu fracture mhm. man dama dama bàyyi sama appareil dama ko top ni ko chapelle yi diko yobbu dama teg na sama appareil dama and ak mom ba boy bi génn ba si biti oh tellement am na bon da ngay dem ba après yow jour yi euh, famille lay doon quoi famille lay doon famille lay doon quoi effectivement hmm. merci beaucoup alors peut-être pour jeexal rek euh, ma le, la ci ki nga xamantene modi moo euh, Sadio Mané gis nañ cérémonie Ballon d'Or bi nga couvrir événement bobu c'était quoi ça t'a fait quoi de couvrir des genres d'événements comme ça surtout quand nga euh, joueur bu mel Sadio Mané euh, mu tu viens du Sénégal euh, vous êtes issus du même continent nga jóge foofu ñëw ci dëkku tubaab yi nga couvrir événement bi face fa sa ça t'a fait quoi. non daf lay neex. Mhm. daf parce que boo demee ay ay ballon d'or ballon d'or mondial nga couvrir franchement da lay neex quoi boo gisee ay sénégalais. et yow nga gis foofu euh, gars yi li mu leen di jaaral yow nga gis ni nga def ba agsi foofu noonu nga gis keneen aussi si beneen côté parce que souvent dama koy wax même booy nekk fii bu ñuy dem sur le terrain dama naan leen euh, reporter bi dimanche dafa am match si biir match bi dafa am match boppam man leen jour yi seen match mooy ñu def match bu baax mm-hmm. soit ñu dugal wala ñu def ay passe yu baax ñu nekk si biir match bi quoi yow reporter dimanche bi sa match moy suba wala ci instant bobu non tay li joueurs yi def ñepp di ko gis ñukoy koy gis ak image yu leer bu fekkee ki nga xamné day reporter moy ki wax mu wax ci ak kàddu yu leer ñu comprendre limuy def bu fekkente ni policier bi policier bi match am moy mu fexé ba kenn du fi jalgati kenn du fi def lu dul yoon mm-hmm. supporter bi ñëw seetaan content ça dit que yoy bo ci bo ci yagge nga dem gis euh, ku melni ni Sadio Mané mu nek au niveau mondial ñëpp di ko di ko tàccu di mu nekk sa doomu dëkk da nga si da nga si kontaan. te man yoo yooyu su ma xasee ba dugg si si si si genre match yooyu wala genre événement yooyu Sadio du ma sax du ko sax wax du ma ko nuyu quoi ma ko <laughs> dama koy gis nii damay xool bon daf lay def nii nga def signe après bon jeex na quoi. Mhm. même championnat France noonu la woon joueurs boo ci nekkee parce que yooyu boo fa nekkee waroo am na yenn signes yoo xam ne doo non non mhm. pas yoo xam ne doo ko doo ko def quoi parce que yow ak ñoom yéen nekk yéen nekk ci benn niveau boo leen mhm. nekk dañuy gisante ni même ay gànna dañ lay gis dañuy contane mais da ngay xol sa kanam sa sen kanam xamne yow dañ lay gis rek dañuy contane quoi parce que xol ah mais grand bi mo ñu doon couvrir euh, euh, Demba Diop mhm. Demba Diop légui xol mo nekk fi Stade de France wala mo nekk fi Parc de Prince yoy daf leen di neex quoi ñun ni muy mel ci ñun ci jour yi mhm. ñom tamit non la mel ci ñom ñom bu ñu gisee ci yenn niveau yi quoi effectivement mhm. et pour appuyer ces propos bi ñu bi Sénégal euh, di def dernier galop d'entraînement avant ñuy dem CAN ce qui veut dire que ni euh, effectivement effectivement en plus mm. peut-être si tu donnes un conseil à cette nouvelle génération lan nga di jox bala ma nga euh, ni bi la dama ci bi indi la pour nga expérience mm. bon euh, Marceline effectivement émission bi émission bu neex la mm. a trop si téw ci émission parce que gis naa ni ngui koy euh, animer wax deug yalla ñeppay euh, régalé wu quoi dañuy mm-hmm. euh, voilà dañuy content de le suivre mm-hmm. peut-être conseil bi nga xamanté bi mang koy jox les jeunes reporters ñu gëm li ñuy def mm-hmm. et puis nongo nongo formé wu parce que image image dafay tollu niveau bo xamné bo démé mu nekk sa métier il faut nga def ay formation quoi parce que lolu moy tax yow fep fo dem

xam ni ngay comporté woo si boo demee si événement bu mun ti doon. parce que yow dangay xool nga nekk foo xam ne lu war a mat ay soixante mille personne ñu ngi lay xool. Mhm. ñu ngi lay bàyyi xel war nga xam ni ngay adapté woo. par rapport ak événement boobu noonu. bu fekkee ne nga dem couvrir ay événement yoo président de la république moo fa ay président de la république am nous nooy par rapport ak événement boobu noonu ni ngay couvrir sport ni ngay solo boy dem sport bokkul ak ni ngay solo boy dem couvrir euh, président de la république. yooyu noonu il faut que euh, euh, jeune reporter yi di ci bàyyi xel et puis jàng métier bi gën ko xam pour rehausser. image du Sénégal. Mm-hmm. Parce que d'abord, les reporters d'image, moi, les caméramans, les journalistes, les photographes, ñoom dañu bokk si ñuy contribuer si euh, rayonnement du Sénégal un peu partout dans le monde mm-hmm. kon ñooñu noonu état du Sénégal daf leen war di formation comme nous mu koy defee ak mm-hmm. aide à la presse ñuy dem ceci di former mm-hmm. parce que loolu dafay bokk si loo xam day bokk participer au rayonnement du Sénégal effectivement Oui. Marceline war war woon <laughs>